salaamaaleykum imam Ismaïla Ndiaye secrétaire général de la Ligue des imams et prédicateurs du Sénégal imam Ismaïla Ndiaye secrétaire général de la Ligue des imams et prédicateurs du Sénégal la Ligue manifeste son adhésion à cette déclaration une déclaration qui est faite pour faire entendre raison au chef de l'État toutes les couches de la société sont représentées pour dire qu'ils ne sont pas d'accord pour le report des élections, mais qu'ils ne seraient pas d'accord pour le prolongement du mandat. Mais nous aimons notre pays, nous aimons le Sénégal. Nous voulons lui garder sa paix et sa stabilité. Nous emprunterons donc toutes les voies citoyennes pour manifester notre rejet par rapport à cette décision et demanderons à toutes les voix audibles de se prononcer davantage, ils l'ont déjà fait, pour faire entendre raison au chef de l'État. Que les élections se tiennent à bonne date pour permettre aux citoyens d'user de sa seule prérogative pour désigner celui qui va conduire les destinées de ce pays-là au lendemain du 2 avril. loolu moo tax ñu ànd ci déclaration bi diwoo woo sénégalais yëpp nag ñu taxaw wane seenu bañ ndax bu doon nguur rek ak nguuru euh, ci yeneen anam lañ koy tànnee waaye du ci anam bii ñu tànn ñun ñëpp d'accord ci ñun ñoo tànn constitution ànd ci dëppoo ci ne nii la ñuy jëlee nguur gi ci réew mi muy présidence ki ñu war a liggéeyal bu jeexee ñi lañ koy delloo kon bu bëggee jalgati loolu na ñëpp taxaw doon ay gor doon ay woy gëm delloo loolu kon moo tax woote bi ànd nañ ci di woo imaam yépp nag ñu taxaw ci gàllankoor loo xam ni bu wéyee ba yegg ci loxo ñeneen mën naa indi fitna ci réew mi ñu ngi ñaan yàlla musul ñu ci fitna yàlla def Sénégal réewum jàmm di woo ñi ñu bokkal réew mi te bokk ñoom diine lislaam euh, ñu tudd leen léegi muy jàngu bi ñoom it wane nañ seen taxawaay waaye ñu gën koo fësal ba dimanche ñoom it ñu ñaan njiital réew mi ñaan waa réew mi yépp ñu delloo si xel yi ba doxal suñu réew ci loo xam ne moo koy indi jàmm te bañ koo indil fitna jërë ngeen jëf ñu ngi sant ñëpp di leen gërëm. imam Ismaïla Ndiaye secrétaire général de la Ligue des imams et prédicateurs du Sénégal. merci imam. les syndicats. El Bon, bonjour euh, tout le monde. Je suis Elaj Malikioum, le secrétaire général national du syndicat autonome des enseignants du moyen secondaire du Sénégal. Ce matin donc, tous les syndicats de l'éducation viennent pour prendre part à cette rencontre hautement importante dans le cadre des activités de la plateforme Aar Sunu Élection. Cette plateforme a jugé nécessaire, avec les activités menées de concert par toutes les parties prenantes pour de mener un combat d'envergure nationale suite à la forfaiture qui a été par le président de la République portant sur l'annulation ou l'abrogation du décret convoquant donc le corps électoral à la date du 25 février. Aujourd'hui, si nous parlons de syndicats d'enseignants, naturellement, nous faisons allusion à la partie la plus importante de la société sénégalaise, parce qu'il s'agit naturellement du système éducatif qui n'intéresse pas moins de la moitié de la population sénégalaise. Et ça, c'est cet effet-là que nous sommes là pour dire non à la forfaiture, pour dire non à la violation donc de la charte fondamentale de notre pays et pour appeler tous les enseignants du Sénégal à la mobilisation pour porter le combat contre donc cette forfaiture qui n'aura comme conséquence que d'installer notre pays dans une instabilité dont nous ne mesurons point les conséquences. Et c'est pourquoi aussi nous sommes là pour demander à tous les autres syndicats de tous les autres secteurs de comprendre que le combat que nous devons mener n'est pas un combat sectoriel, mais un combat multisectoriel. Parce que la charte fondamentale de ce pays-là n'intéresse pas un seul secteur. Ça intéresse tous les secteurs d'activité. Et donc, nous lançons un appel à la synergie des forces de tout ce pays-là, de toutes les forces d'air vives de la nation, pour qu'on puisse porter le combat et exiger du gouvernement, exiger de M. Macky le président de la République, qui a eu à violer les dispositions de cette charte fondamentale-là, donc de revenir à la raison et de revenir à la normalité constitutionnelle afin qu'on puisse accepter de dérouler ce que nous appelons le calendrier républicain et qu'on puisse accepter aussi de rester dans la légalité et de respecter les principes de l'état de droit. Et c'est à cet effet aussi qu'il y aura déjà de notre part, nous, un plan d'action qui démarre demain vendredi et à partir de 10 heures nous allons observer un débrayage dans tous les lycées, écoles élémentaires et CM de ce pays-là et nous demandons à tous les enseignants de respecter le mot d'ordre, ne serait-ce que pour lancer une alerte à l'endroit de ces autorités de la République qui viennent quand même de violer notre constitution. man la Alaaji Malick Youm secrétaire général national bu syndicat bi nga xam ne moo ëmb jàngalekat yu nekk ci l'école yu diggu doomu yi ñu koy wax SAEMS e tey dañu fi ñëw ci turu syndicat yépp yi nga xam ne nii ñoom ñooy yëngu ci njàng ak njàngale donc syndicat yooyu mën nañ ci lim sax sunu naataango yi nga xam ne ñoo nekk CUSEMS e A sunu naataango yi nekk CUSEMS e suñu naataango yi nekk ci G7 suñu naataango yi nekk ci G20 donc syndicat yépp ñoo lëkkaloo tey daje ñëw boole seen doole ci plateforme bi ñu tuddee Aar Sénégal aar sunu élection aar sunu élection tong li ko yëkkati mooy seetlu nañ ne nguur gi dafa jalgati li nga xam ne mooy charte ndey réew mi ñu koy wax constitution bi ci nu mu ko defee nag mooy président Macky Sall décret bi mu jël di neenal décret bi mu jëloon en novembre 2023 bu yoroon collège convoqué collège électoral bi donc décret boobu jaarul yoon day salfaañe charte ndey réew mi moo tax ñun ñu ne loolu tey képp ku nekk sénégalais da nga war a taxaw xeex ko moo tax ñun ñëpp ñu daje lëkkale suñu doole ñu ne nag boo tuddee syndicat école da nga xam ne école bi. boo ko jëlee ci préscolaire ba université concerné na lu ëpp moitié euh, population bi kon lu toll nii bu ñu ko defee réew mi dañu war a jàpp ne kon ñëpp ñi nga xam ne école litteel na leen ak ñëpp ñu nekk tey ci euh, Sénégal dañu war a taxaw am engagement ak détermination pour xeex ak nguur gi ngir mu deltu ginnaaw ci salfaañe bi ñu def loolu nag moo tax ñun ñii ñëpp ñu daje lëkkaloo waxtaan suñu biir ñun syndicat yi ñu ne tey daañu def ba nga xam ne nii suñu ay plan action dañ ko tàmbali ci nu mu gën a gaawee te li ciy jiitu mooy ajjuma muy suba ñu ne li ko daggee fukki waxtu dañuy wax jàngalekatu Sénégal yépp bu ci kenn fas xànc ak morom ma na ñëpp toog banque seeni yoxo wan nguur gi ne ànduñu ci li mu def tey ànduñ ci suba te duñ ci ànd ginnaaw suba li ñu bëgg nag mooy ñu respecter calendrier électoral bi ñu continuer ni ñu tàmbalee woon pour dem ci élection ak jàmm ak salaam à la date du 25 février 2024 loolu mooy li nga xam ne moom la ñuy xaar ci nguur gi waaye du ñu nangu li nga xam ne mooy forfaiture bi ñu ngi leen di gërëm di leen sant.